cheikh bi yow sëriñ saaliw sa ànd ak moom kenn mësta ànde ni teral ko sab jaam cheikh bi yow sëriñ saaliw sa ànd ak moom kenn mësta ànde ni teral ko sab jaam cheikh bi yow sëriñ saaliw sa ànd ak moom kenn mësta ànde ni teral ko sab jaam wax na la. déedéet bu mu wax. waaw indi na bu mu am loolu indi woon na ko ba jox na ko sëriñ. ah, ah waaw waaw. nii ngay jaar nii ngay jaar nii ngay jaar. mooy jërëjëf sëñ bi. jërëjëf sëñ bi. ah sëñ bi. de. waaw yow. naaw la ñaar lañ mooy kaso Tom ndax moom de lu ñu jëm jëm ci mu mel ni ñun ñii de dañoo am ndam loo xam ne da weesu woon te dootuñu si gi. balaay sa bëgg nañu na mbëggeel goo xam ni yow mii rek lañ koy seereel yow mii rek lañ koy seereel waaye ñii fi daje de ak ñi ñëwul ak ñi nga xam ni ñu ngi ci biir fii bu ne te boo demee fu ne ñu fay dóori seen bopp waaye li nu ci xam de mooy nun de raw nanu waaw nun de raw nanu euh, wax ji lu mu gudd gudd gudd xam nga li ma bëgg a wax lu mu gàtt gàtt gàtt xam nga li ma bëgg xam nga ni man day waxi cofeel rek lay waxe man day waxi gëm la bëgg la faw moom rek laay waxe ba na noo ngi ñii nu àndal di sunu bokki taalibe yi nga xam ni di biir jot nu teew si fi di jigéen ñi di ña ca kër ga bàllaay sa ñëpp a di ñëw de moom day mbir mi nag day di ñaa daal tàmbalee xam li xew li xew day nu ngi koy bëgg xam nag ba na moom de ñu ngi ñëw nag yàlla na nga fi yàgg. yàlla na nga fi yàgg bàyyi. noo koy ñaan ndax mooy sunu njëriñ. noo ngi koy ñaan ndax mooy sunu yàgg fi. noo koy ñaan ndax mooy sunu wér gu yaram. moom noo mooy sunu àjjana. noo ngi koy ñaan nee naa leen de yegg ca yàlla mi ngeen di dégg day mu yëg si fii. fii de ku fi ñëw ñu ràññee la. fii ku fi ñëw ñu xam la. yegg nga.

jërëjëf Balla Aïssa

nu noonu dañu lay fekk njaarim sa dëkku bopp bii lan la fekk ci ngir siyaare si la waaye sunu siyaare bi kat sant si la rek dañu lay sant si ndey ak ñaan daa mënta ñàkk ba tax na faaw ñaan la tey li nu lay ñaan Mbàkke mooy nga yàgg fi ci wér sa yàgg fi yitteel na jaam ñépp lislaam bépp rawatina nag sa ñooñ nun ñii sa ñooñ noo ngi lay sant noo ngi siyaare wax ji nag du weesu foofu moom daal ñëw jàkkaarloog yow delluwaat wax la sunu sunu mooy nga yàgg fi rekk li ci des lépp ay cant képp la Mbàkke yàlla na yàgg. nee na cant gi mu ngi nuy ñaanal nu daje ci ak li sunu borom digle dige li sunu borom dige. nee na ku sant mu dolli la. yàlla nan ci dajeeg ndolleen loolii. nee na cant gi ci jaamu yàlla la bokk te muy jaamu yàlla nag bu ñu nangu. meloo ala daawuda sukuran moom la digaloon yonent yee moom sunu borom. neena na mu ngi ñaan sunu cant gi yàlla yéegale ko ca cant yooyee. cantam yooyee mu digaloon yeneen tam ya yàlla na ca sunu cant gi bokk. ak lim ci digal lépp yàlla ci dajeeg moom ci cant gi. nee na sunu borom nee na ko sant mu dolli la. ci dajeeg loolu. nee na mu ngi nuy ñaanal nu yàgg fee dikk yàgg ko fee fekk. te daje ci akub mucc ak njariñ ak yokku. ngeen tàllal seen loxo. bëggoon na jébbalu yéen ñëpp da di jóg nag daal jaar nii ñële jaar ne te ñi bëgg a wut si ma fii ay ca na ñëw am na am na waaw léegi ñi jébbalu na na ku ne wax ci sa làmmiñ jébbal naa la sa bopp na nga la wax léegi say loxo da wax jébbal naa la sama bopp àddina ak alaaxira képp ku wax rek loolu nee na nungul na la ko. nee na ñi jébbalu ñëpp boole na leen man. nee bu nu demee. seen yitte yëpp na ngeen ko mottalee ci man. nee na soo te yéen ñëpp ngeen bind seen i tur te yónnee ko ko. dina am nee na man mii maay bind seen i tur te yónnee ko ko. bi si ba ci sama tool baay boobee bu ko dee seetlu sax mbir bi day doon loo xam ni bu jëkk waaye naa lu jóoru ko ne ma jàppoon may daw di la nekk sa ci sa wajur nekkee nga nga def ma nii nga ma def rek indi ma rek nga mbàkkee bu ñu nee Serigne Saliou ko wax ku ne sama xel dem ci Cheikh Béthio loolu daal la lay jikki ba yàgg xalaat gi ma koy xalaat damay dem bay miir ma xam loolu loolu nu mu demee rek foofa rek la yëf yi foofa rek la yëf yi li ci des loolu a wane rek la foofee oh sant naa la loolu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 daal xam ma bàyyi ba yegg ah waaw loo wax rek ah waaw loo wax rek. ma yor ko. moom ay ma yor ko sax ah. jaajëfe Mbàkke jaajëfe Mbàkke jaajëfe Mbàkke jaajëfe Mbàkke waaw waaw. jërëjëf kenn musu ko. naam ngay. boo ba tey dama di ko dindi bu waxee fàtte ko. waaye nii maa ngi moom maa ngi moom kii nii cheikh bi ngeen gis nii muy génn gannaaw bi nga xamante ne siyaar bi noppi na Serigne Saliou Mbacke jox ko yooyu xeetu barkeelu génn gannaaw bi nga xamante ne siyaar bi noppi na Serigne Saliou Mbacke jox ko yooyu xeetu barkeelu ànd Cheikh Ibrahima Cheikh Bamba la may delloo Aboubacar Ousmane Alioune Omar yeneen suñu dégg may teraanga siiwul def ju wet borom wet tey Serigne Saliou wa kenn mënul woon rëbb yaa ko dir jam fentu cant ñi way na Serigne Saliou